mbokki di rafetlu woon bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na ñu ak seeg kon ci xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës Thiès Ndakaaru ba mu daj jàpp Mbour 3 heures du matin ba mu tegee fukki simileek ñeent la ñu tàmbalee dundalu mit ci ak euh, dog-dog yi kurang ci waxtu wi tàngaay wi tare loru ak euh, lakk ca centrale ba ca Thiès lañu ni moom moo indi bi situation ministre de l' moom la mu ca jàpp moo di xamaguñu ndax ab accident la wala nekk ca ginnaaw lu ci mënti dëgg gi dana feeñ euh, mu ca jéggalu askan wi euh, indi nay tay leeral xam le ni euh, du kon loo xamante ni ñëpp dañ ciy jotaat ca saa si ndànk-ndànk lay doon ca boobee courant ñenn ñi nag boole ko ak beneenu ko coono mankim ndox moo xamante ni nimiku nañu ko ci gox yi Dakar koñ yu bari démb ak léegi askan wa di jooyit loolee ñu tegati ci seen kaw marigo ba ca mbaaw moom wéy di indi coow boobaak léegi askan wa ne ña ngay waxala leen ca naqari kilifa ya defuñu ca dara dara ba tax na xëy na ñu amal assemblée générale nee nañ nag jël nañu dogal léegi teg nañ seen façon ngir régler seen bopp boobee problème ci nag dinañu ci indi ay leeral ca kanam tuuti reportage ci li nga xamante ni moom moo di njaayum fleur yi fële ca Mamel ndax métier la moo xamante ni ña ca yëngu ña nga cay gis seen boppam déet kàddu yi wute na ci diggante ñii di jardinier yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat yi seeti nañu leen dinañ ci dégg Birama Thior am nañu ganit ci xibaaru digg bëccëg bi Hélène Tine lay wuyoo député dana àddu ci contrat yi ñu fi def ci wàllu pétrole ak euh, gaz gannaaw nga xamante ni nekkoon na fi jëwriñ ju jëkk Abdoul Mbaye la mu ca wax bëgg ñu leeral ko yooyee contrat actuel premier ministre tontu ko euh, bu weesoo kon euh, geeru bataaxal yooyu askan wi ndax danañ xam dëgg la ñu xaatim ca biir ak nu ñu mën a def moom honorable député dina ci ndey leeral ca kanam su ti lay doon ponk yaa ko ni sut ñu yaatal ko mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias euh, coono ci askan wi rawatina waxtu nga xamante ni moom la tombeel tàngoor wi euh, mu di lu jëm nag ci dog-dog yi courant boo xamante ni euh, nimiku nañu ko ci ndakaaru ba mu daj Thiès ba mu dacc jàpp Mbour loolee nag centrale ba nekk fële ca diwaanu Thiès la ñu ni moom moo takk bik boori 3 heures bi mu tegee fukki simili ak ñeent indil jafe-jafe nag nit ñi bi ñu xëyee ci suba ay boori 9 jàpp 10 la courant bi tàmbali di dellu si boole kooku ak ay dog-dog euh, lan moo indi bi situation accident la wala dafa am lu nekk ca ginnaaw Idrissa mi ngi ci ligne bi chef service dispatching ca Sénélec fële ca diwaanu Thiès monsieur Traoré ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay euh, ndax kon euh, leer na ci wàll woowu accident la moom moo indi lakk ga foofee ca Thiès wala dafa am lu nekk ci ginnaaw yan xibaar nga ci mën a jox ci waxtu wi. waaw actuellement lu ñu mën wax mooy am na ay équipe yi nga xam ne ñu ngi dem dem nañ Thiès mm-hmm. ñu ngi def investigation di saytu affaire bi pour jéem a xool problème bi fu mu jugee mais lu ñu mën constater c'est que amoon nañ ay incendie ay booru trois heures du matin mm-hmm. mu leen ndax euh, accident la parce que trois heures la euh, du matin ni nga ko waxee ba waxtu wi ci treize heures amagu leen benn information ci leen moo indi situation bi waaw situation bi dafa laaj dafa laajte euh, ñi fa nekk def benn analyse bu xaw a poussé bu xam exactement problème bi fan la jóge ñu ngi si ñu ngi koy saytu te xam naa euh, du yàggati ñu am information bu leer pour xam exactement problème bi fan la jóge woon mais amul woon benn alternative ci wàllu centrale boobu euh, xëy na ba waroon mën a wàññil coono askan wi ndax metti woon na loolu euh, tàngaay wu tar wi ñu nemmiku ci dëkk bi trois heures du matin ba ci suba courant amul euh, amul woon beneen pexe pour boo léegi ñu war a mën a moytu yi situation. waaw waaw dëgg la am nañu alternative mais alternative yi moom moo tax nit yi sax am courant parce que au lieu ñuy jaarale courant bi Thiès dañ ko mujjee jaarale booru booru kunun donc dañu jaar par Tobène donc alternative boobu la ñu utiliser loolu moo tax euh, joxewaat courant bi dafa xawoon yàgg parce que fa la ñu éviter zone boobu mooy zone Thiès on dañu jàll côté Kounoune ça on a pu euh, alimenter waat client yëpp. Euh, sànq ñi ngi doon wax naan xëy na dellu si gii du ñëpp ñoom ñoo ciy jotandoo ndànk-ndànk lay doon kañ la ñu xalaat situation bi dellu si carrément à la normale. waaw comme ni mu ko expliquer sànq équipe yaa ngi foofu pour def pour def ay recherche pour xam exactement problème bi fu mu jugee zone Thiona bi mooy zone Thiès bi am na quelques clients yi nga xam ne actuellement amuñu courant mais une fois que ñu dédouané euh, fidèles départ yi alimenté zone yëpp on on pourra remettre le courant kon actuellement euh, enquête bi moo koy mën moo koy mën conclure après ñuy delloo courant bi nank-nank si dép si différents si clients yi. mais mën nañ njortu monsieur Traoré ne xëy na balaa guddi quand même euh, lii dinañ ko régler. Oh, parce que tamit il faut que ñu analyser éten étendue des dégâts mooy dégâts yëpp yu ñu fa am donc dégâts yi mën nañ mën nañu important qui fait que nit yi ils seront obligés de travailler pendant vingt quatre heures ou bien quarante huit heures donc actuellement c'est assez prématuré teel na loolu pour ñu mën joxe. Euh, période bi nga xam ne ban instant la nit yi mën amaat courant mais actuellement seen rek ngi def nit yi amaat courant nit yi nekk si zone Thiès mënaat amaat mënaat am courant quoi. ci lu mu hmm. gën gaawee. ñu lay gërëm kon monsieur Idrissa euh, Traoré chef service dispatching euh, dispatching fële ca diwaanu Thiès doon indi leeral ca lakk ga woon ca centrale ba indi tolof tolof ni ko waxee ci Dakar jàpp Thiès ba Mbour euh, mu leer it ni xëy na coono bi moom dana wéy ci ñenn ñi boobee coono nag askan wi am na beneen boo xamante ni tegal nañu leen ko ca mu di lu jëm ci ñàkk ndox ci yenn koñ yi situation boobee it amuñu ci lu jëm ci wàllu xibaar. xibaar ci lan moo ko waral euh, manquem ndox moomu du ñàkk ci yeneen édition euh, kilifa SDE day leeral ci euh, li waral lu ni mel fële ca mbaa bu ñu fàggee dañ fay wax loo jëm ci xeet dex googee fa nekk askan wa nag ne nañ boobaak léegi ña ngay yàmbat problème ba fa ne pour ku leen ko régleel waaye gisuñu kenn ba tax xamal nañu assemblée générale ci subak tey jii ne nañ nag léegi ñoom ñoo ko fas yéene lijjantil seen bopp ci nag dañu cay teewlu kàddu ñenn ca ñoom ci micro Salif saw bon suñu combat bi xam naa ne moom dina gën a garaaw te gis ne état bi bu réagirul lu mu gis moom la parce que dafa mel ni ñoom waa Sicap faalewuñu waa Mbaaw yëguñu waa Mbaaw te booy xal Cap Vert Mbaaw moo fi mag ñun nag bu ku ñu yëgul ñun ñu yëg suñu bopp dana arrêté ci ni mbaat mu arrêté ci nële ñoom ñëpp bind nañ wala wax nañu ñaa ñu war a waxal mais nag ñun dañu mënatul xaar parce que ñoom bu ñu waxee bu pare ñiy continuer di tas su jàll suuf nekkoon fii vraiment nous population on ne peut mënatuñu xaar ñun nag dañoo sonn parce que depuis ñun 2005 ba léegi ñoo ngi fi dex gi sonal nañu amuñu ku ko defar ba pare ñoom ñu ñëwaat di ñu indilaat beneen problème léegi nag président Macky Sall la ñuy woo ñun sonn nañu daj nañ fi lu nekk kenn mënuñoo wallu si. barki démb rek lañ fi jógee pour wax ak état bi pour wax ak SICAP ne leen fii nañ ko arrêté parce que ñu ngi sëkk dex gi te dex gi baaxul ci population bi mu ñuy menacé léegi nag fi mu ne amatuñ sax lu ñuy xaar. SICAP dañoo bëgg mu arrêté liggéey bi wala ñu seet nañ la ñuy def ak ñoom parce que ñu si dara ba bañuñu si ba joxe suñu bakkan xeex googee ñu xëpp suuf ni ngeen ko gisee waa SICAP la ca joxoñ baram tey sàkku njiitu réew mi mu intervenir ay feebaru kon biir yuy daw yenn yu feeñ ci wàllub der wala sax lu jëm ci mbir yaane mi ak sànn jàpp nañu ne ca ginnaaw raay yi tawat bokk na ci la gën a fës euh, ca askan wa ñu gis ni nag euh, dafa yàgg loolu te faa jógee te la ko indi bokk na ci euh, ñàkkuk cet ca boobe diwaan xadili chef de poste ba foofe ca ginnaaw raay moom moo jox joxe yooyee leeral boog it ku ca ñëw indi cay saafara ñu doon def journée consultation gratuite moom soxna Khady Ly wax ci micro Salif Sow caméra Malick Diop. jàngoro yi nag tey gëstu naa lu tolloo téeméeri xale ak fukk ak juróom-ñett jàngoro yi bi ci njëkk mooy problème mu der wokku xasan ak yooyu problème biir bu daw problème mu nutrition anémie. malnutrition loolu lañ ci gën a jàkkonteel ak biir buy daw feebar yi mooy ko li ma wax rek dëkkuwaay yi tërukaay bi sangu bi hygiène bi environnement bi xale bi évalué lekk gi muy lekk loolu moo tax loolu moo gën a yokk maladie yooyu yokk ci kii bi déjà état bi lim ciy def commencé na ko lu rëy la mais liñ ci gën a mën a def mooy ñun ñëpp l'état mënul lépp ñun ñu dëkk yi ñun ñoo war a njëkk a song suñu jàppale euh, no euh, kii ta euh, kii kii taalibe yi jàppaleen sëriñ bi jàngal taalibe yi ñaareel bi mooy ñu dimbali sëriñ yooyu tamit ci mooy lekk gi xaalis bi ak tërukaay yi jumtukaay yoo xam ne dinañ mën a tax améliorer condition de vie xale ñu dem ba boori euh, Kabada soriwul euh, dara frontière bi dox suñu digg ak Gambie wax lu jëm euh, ci àll ba ñuy dagg bant ya ñu gis ni ña nga koy caxat caxate boobaag léegi nag waa Eaux nga ca xeex ba waaye ngir am ci résultat yi ñu bëgg dañu caa dugal askan wa ngir nag ñu mën a aar li nga xamante ni moom kon moom moo di kiw gi boobee xeex sensibiliser nag lañu ca fas yéene def ñu teewlu ci kii di Bakary Henri Conté. àll kabaada bi mu ngi ci ay jafe-jafe yi tar ndaxte garab yi ñi fay dagg bés bu nekk dina am ay camion yoo xamante ne dañ koy fasal dal ak ay bant di ko yóbbu ci diwaanu Gambie. mooy environnement bi ñu ngi koy rey carrément boo demee fii à deux kilomètres doo fa fekk benn garab garab yëpp la ñu dagg yóbbu ko feneen donc desetul dara te bu yàggee dootuñu am jur dootuñu am taw dootuñu am dund donc euh, c'est la catastrophe moo tax. ñu ñaax leen ñu taxaw ci pour aar àll bi ñun ñëpp ay sorla lañu ñu ngi koy aar ci ñi ñu formé ñu ngi koy aar ci APEF association pour la protection de l'environnement et de la forêt xeex jafe-jafe boobu association protection de l'environnement et de la forêt moom nag daal di lëkkaloo ak équipe municipale bu Ndiamakuta amal benn formation sur la protection de l'environnement formé na nit ñi jàngal na nit ñi won nañu ni ñun suñu àll bi ñoo ko moom mu won ñi naka la ñuy def pour ñu mën a aar suñu àll bi yàqkat yi nga xam ne dañuy ñëw di ñuy yàqal parce que boo gisee taw bi di taw bante ñoo tax bu àll bi amul ay bant du ñu am ndox. dafa doon am ay ay lu ñuy wax forte pression sur nos ressources maanaam trafic bi donc tey complicité la soo xoolee complicité avec les populations donc frontalières euh, de la Gambie dañuy ñëw di jënd les jeunes dañuy ñëw am leen daañu jënd bion bion bion bion temps. à temps. Donc finalement, euh, tous, tous les jeunes se sont s'adonnés au trafic de longue de Aujourd'hui, avec l'émission, avec nos patrouilles nocturnes qu'on qu qu qu a, on a, service des eaux et ñoom nag di ne dinañu wéyal liggéey bi xeex lépp loo xamante ne nekk na trafic illicite bois fii ci diwaanu Kabada. ñu wax ci lu jëm ci wàllu kon euh, koom gi ak projet développement inclusif durable agro business euh, ñoom nag euh, jàpp nañu ni ca walo la ñu fas yéene daal tàggat ay ndaw nee nañ loolee bu sotti bu sottee dana indi lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ci wàllu xëy la ci ëpp kon ay jigéen lay doon ca commune bu Ngicc la ñu ko tàmbalee boobee projet ñu fekk ji fa Ousseynou Diop Habib Seck ci caméra bi. projet bii di PDIDAS ëmmam doon jàppale ndaw ñi ki junne ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukki ci ndaw nag war nañ leen tàggat waaye tamit teg leen ci yoon ngir ñu mën a am xëy banque mondiale moo ko financé tollu ci ñeent fukki ci ay milliards la ñu bëgg mooy gën a taxawal xale yi ñu mën a xam pexe ki prox ndol yi ñuy jaar ngir lu jëm ci wàllu mbay mi ñoom ci xam-xam bu wóor ñun 9500 en fin de projet lan war a recruter am emploi direct lan war a am donc activité bu koy déroulé ci commune ñiit bi ci opération pilote lu am solo la ñi doon benn ci commune yi nga xamante ni foofee la ñu joxe ngir mën fa yëkkale projet bi yeneen juróom-ñeent ci ay commune nag war nañ fa dem ngir mën a jàppale ndaw ñi. ndax gis nañ ci àddina bi nii entreprise yu bëre buñ leen demee ba taxawal ñetti at yu njëkk yi si bëre day naax saay nag foofu na ñuy gën a intervenir après jàppale leen lu ñu tuddee coaching ba nga xam ni daan mën a jëmmal ak pérenniser seen activité. commune bu ñi di jëngu jëm ci wàllu mbay mi téeméeri junni ci ay hectare nag jamono jëlee kenn bayagu ko tax nag maire bi lee di yëkkati kàddu ngir xale yi gën ko fulaal waaye tamit état bi jàppale leen ci. te ñun dañu gëm ni développement wu Sénégal dama ko yàgg di wax fii si Lac de Guiers lay juddoo ndax yàlla daf fi def suuf bu doy ndox mu doy ndax mën naa ni tur li wër lag bi am na lu mat cent mille hectares yoo xam ni lu wër lac bi te lan moo si manqué moo di lan mooy yóbbu ndox mi ba nit ñi jot ci dama yaakaar ni projet bii moom bi mu fi ñëwee si yooyu taxaw la taxaw. jeextalu projet bi téeméeri junni ci ay tonnes ci wàllu mbay mi ñu ngi ciy ci ay fànn yu bare juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw war am xëy bi lu toll ci juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer ci ay jigéen war nañ ci am liggéey. wax nañ leen ko ci ndorteelu xibaar yi am nañu gan ci xibaaru euh, digg bëccëg bi Hélène Tine député bokk ci réseau parlementaire pour la bonne gouvernance euh, minérale euh, minérale honorable maa ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay. ci xibaaru digg bëccëg maa ngi lay fay soxna si di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. li ñuy waxtaanee nag moo di coow liñ fi dund rawatina ci njeextaluwaayu bés bi mu saxal contrat yi ci diggante pétrole ak gaz bataaxal boo xamante ni ancien premier ministre bind na ko Abdoul Mbaye contrat actuel premier ministre tontu ko moom it cib leetar moom it Boun Abdallah Dionne euh, yaa ngi suivre actualité bi noo gisee bataaxal dem yooyee bataaxal dikk. Euh, hmm. lépp ci ci loo xamante ni xëy na askan wi la ñu war a wax ay mbiram. dëgg la maa ngi suivre wax wax ji. maa ngi leen di gërëm ci li ngeen ma woo di nuyu waa Sénégal yëpp di wax nag ni suma naataango yi nga xam ne ay député lañ dañoo kuréelu ca penc ma def benn kuréel goo xam ne dañu war a saytu népp ni ñuy téyee alal ji meññee ci suñu suuf ak suñuy koom-koom ci wàll woowu ma bokk ci nag teew fi ngeen woo ma ci wàll woowu wax ji nag man li ma ci gis mooy wax ji dafa mel ni dañ ko bëgg politiser te bii wax du wax ju ñu war a politiser ndax wax ju am solo la wax ju am solo ndax dafa nekk loo xam ne alalu askan wi la askanu Sénégal war cee sukkandiku gis ci seen bopp euh, kon tey bu ñaari bu premier ministre ak koo xam ne nekkoon na premier ministre bëggee def ping pong mbir mi ah dinañ ne gënut liñ ciy wut nag muy muy premier ministre bi fi toog ak ka fi woon yëpp leeral la ñuy wut askan wi tamit leeral la ci bëgg te dañu mhm. dañu cee sas pour mu leer lu tax ñu sas ñi pour mu leer damay fàttali rek ne premier ministre bii nee na ancien premier ministre demal ITIE ITIE mooy initiative pour la transparence dans dans les euh, industries mm-hmm. Euh, donc euh, extractive. Euh, ci ci loolu mu xamal ko ne nekkoon nga premier ministre xam nga procédure bi donc boo ci bëggee am loolu leer ni nga ko waxee demal itie mais en tant que ancien premier ministre bu toogee jékki-jékki ni contrat yi na leer nekkoon na fi est-ce tam xel mënta tey ci ni xëy na am na loo xamante ni ña nga koy nas moom yëgoon na ko njàpp na ni dina dox ba tax na mu bëgg leen pousser ci mm. mbir moomu ñu jëm ko leeral. boo gisee ma ni waruñ ko politiser mooy moom dafa nekkoon ancien premier ministre. mbirum Petro-Tim bii ñuy wax moom moo nekkoon foofa bañ koy signé bu ci xamee dara loo xam ne nag luy lor askan wi la dafa war a jël ay responsabilité mu wax ko ndax dafa toogoon kii tamit toog fi li ko war mooy li fin ne te muy alalu askan wi ñu leeral ko ndax nee na ko na dem ITIE ITIE nag suñ ko fàttalee askan wi mooy Ablaye wadd moo doog toogoon le 2 février 2012 ne Sénégal dafay bokk ITIE muy loo xam ne volontaire la da bu cay dem ñu wax ko nguur gi ñëw tey état comme continuité la doxal ko ba ñu ngi jëm ci deuxième rapport bi Sénégal war a dépassé déposé et rapport boobu mooy tax ñu nangu ñu itee itee fi mu ne candidat la ñu fa pour na nga nekk fa candidat ba ñu jël la day fekk rapport bii mooy li ñu laaj yëpp nga doxale ko mm. donc tey itee li mu santaane mooy suñu sañoon rap ko contrat yooyu ñu signé mhm. ñu siiwal leen ñu leeral leen ndax suñu charte réew dafa ne askan wi dafa am droit accès à l'information ñu signé lu ñuy wax code de transparence loolu sas ñu ne lépp loo xam ne dañ ko war leeral askan wi yëg ko kon loolu tënk na njiit mi nga xam ne tey mooy njiitu gouvernement ñu leeral ko te maa ngi leen di laaj ndax est-ce que ITIE yor na maanaam contrat yooyu nga xam ne moom la ñuy laaj sénégalais xam li ci biir. Euh, kon coow li coow li dem leen leeragul sax ni it ITIE yoru ko lu tax ITIE man def ci li ma xam lu gàtt. maa ngi woo tamit waa ITIE ñu wax Sénégal dégg leen mais premier ministre ci boppam maa ngi koy interpeller ITIE ndax yor na contrat yi ndax contrat yi la ñuy laaj ndax contrat yi nag dafa war a dañ ko war a siiwal. assemblée dey man de en tant que député ba ma fa toogee ba léegi indi lu ñu contrat yooyu. te mais ci loolu yéen réseau parlementaire pour la bonne gouvernance minérale tey jii ñu ngi wax ay mbiri pétrole ak gaz xëy na euh, doon nañ leen séntu ci yeneen mines yeeg yooyu amu leen ci benn euh, information euh, ci li nga xamante ni jot nañ ko signé ak kii que ce soit. ñun am na lu ñu ciy jot a wut waaye ñu jox ñu ko officiellement moo tax tey li may laaj mbirum leeral bi opacité bi jeex dafa am lu ñu tënk engagement yu ñu jël te loolu pour mu am. nañu d'abord jox assemblée bi teewal askan wi àqam ak yelleefam contrat bu génnati ñu indi ko assemblée assemblée càmbar ko signé ko wala ñu boole assemblée ca bañ koy signé mais fi mu ne contrat yi ñett wala ñeenti nit day soxna si. Mm. ñoo koy xam ñoo koy doxal ba signé ko. ñu signé ko muy muy day jóge ci ministre bi yor secteur bi bu dee énergie ministre bi yor secteur énergie bu dee mine ministre ba ñu jóge fa jaar ministre de finance jaar premier ministre egg ci président de la république loolu ñett wala ñeenti nit la ci loo xam ne day engagé Sénégal vingt cinq ans koom-koom ba fa nekk yépp mu engagé leen dañu war a jël contrat yi ñu fexe ñu indi ko assemblée ni ñuy voté accord de défense yi ak États-Unis ak leneen ñu indi contrat yi xool ko ñu jël contrat yi ndax ITIE nekkagul loi ITIE am nañ yéene mu lekk loi ñu ngi ciy encouragé nguur gi mu doxal ci waaye nañu jël contrat yi comme premier ministre nee na naataangoom ba fa nekkoon na dem ITIE nguur gi na jël contrat yi jox ko ITIE ndax soxna si xam nga code minier code minier bi nekk en cours te daté de 2003 dafa am clause bu lu fay tënk ne contrat yi dañu war a nekk confidentiel lu ab askan moom lépp nag warul nekk loo xam ne day lëndam nekk confidence mais mais est-ce que au sein au niveau de l'assemblée tey jii mën ngeen xëy na woolu jëwriñ ji euh, wala kenn comme niñ koy doon defee mu ñëw leeral euh, rien que wax sur les contrats. Euh, kan lañ si signé fan lañ toll pour combien de temps soxna si assemblée buñ taxawee taxawaay bi askan wi di xaar ci ñun mooy coow lii duñ ko bàyyi mu nekk bali ping pong ci diggante ñaari premier ministre waaye dañuy woo nguur gi mu indil ñu documents yi ñu def mission pourquoi pas. nañu def commission d'enquête parlementaire pour mbir mi leer. enclenché ngeen procédure bi wala pas encore enclenché guñ ko man kay damay interpeller waale suñu bopp ñun député yi ndax assemblée dafa am ay charte yu fa teew li ci des mooy premier ministre kañ lañ ko gëj a gis assemblée ba mu fa ñëwee suñu gaañi takk seen morceau yu xonq ya ba léegi tegatu fa tànkam mbir mi war na tax mu ñëw assemble nationale ñu indi document yi mu leer ndax ñu ngi ciy joxoñ nag rakku njiitu réew mi coow li bëri na. muy abdul mbay ma fa newoon ba ñuy signé mbir moomu ak moom mii fi teew li askan wi di xaar ci ñoom mooy nañ ko leeral ITIE bi ñu jox ko dëgg ñu jox ko gëdd te nag contrat yi jiitu woon balaa ñuy dugg ITIE nañu leen càmbar est-ce que xam nga ne ICS mhm. contrat am dégg naa 1958 ba léegi soxna si lañ ko signé woon contrat boobu nañ ko càmbaraat ñu yeesal ko te mu ñu mën ko gis ci budget Sénégal. mais mais xëy na ICS nga wax tey mais am na yeneen contrat ñi ngi wax or bi euh, am na lu ñu fiy exploité mais askan wi yëguñu ci seen bopp. tey la or gën a cher. dañuy ragal bu pétrole bi ñëwee tam nii la ñuy rombee gaz bi na ko noonu. waaw xam nga euh, xam nga ay charte ñooy doxal code minier baa ngi nii ñu ngi koy war a indi assemblée pour ñu yeesal ko xalaat naa ne su code minier bi ñëwee. Euh, caabi lawbe boobu ñu wax ne contrat yi kenn warut xam la ca ne ñett wala ñeenti nit mu yem ci seen ci loo xam ne alalu askan danañ ko déverrouiller xalaat naa ko te buñ ko defulit dañ ko waral laaj taxaw ci ba mu am ba contrat buñ fiy signéeti ñaar fukki at ak juróom ñu leeral ko ci kanamu askan wi ñu xam ne lii la ñu engagé suñu réew muy or muy mm-hmm. pétrole muy gaz muy phosphate muy zircon ma ni la alal ji fi nekk tey li fi am lépp te lii nag moomu ñu ko ñun kese ñun ñi fi ne tey ña juddoogul génération ëllëg ci ñun ñëpp ñoo ko bokkandoo. mais est-ce que am la ceetaan euh, honorable parce que xëy na wax ngeen ko euh, tey ji euh, or bi ñu ngi koy jël mu ñuy romb nii ñun ñuy rey suñu bopp fii ca fañ koy jëndee am ngeen moyen wala ngeen a seetaan ba xëy na ñu ngi signé yeneen contrat xëy na même bu dul ci domaine mine tali yi sur 30 askan wi di gën di sonn chaque fois coow li mooy bari mais taxawaay bi war quand même pour freiner xëy na l'État duñ ko gis ci ci ci lu demee. xam nga ñun looloo tax a jóg suñu réseau bi réseau bi ñun dem nañ. ba Sabadola dem nañ ba visiter miine ba fa ñuy defaree oru Sabadola ba dem nañ fii tamit MDL xol zircon bi ndax zircon baa ngi fiy génn alal dul jeex la dem nañu fii ba Ndar suñu président dem na ba Ndar seeti mbirum pétrole bi ak mbirum gaz bi dem nañu Matam phosphatu maatam yi ma ni alal ji tey jii xam nga lan la jural réew mi ci rapport ITIE bi 2000 bi génn 2000 2013 46 milliards la ñu versé ci rapport boobu soo xoolee ci 46 milliards yi lépp lu jëm ci gaz ak pétrole 3 milliards la indi mu dugg ci gafak askan bi 43 milliards ya ñoo génnee ci yëfu mine yi mhm. ci muy 46 milliards loolu soo jëlee budget Sénégal nga xam ne 322 milliards la ñu yokk ci suñu loi de finance rectificatif bi deux cent vingt et milliards mm-hmm. loolu mën nga ne sa à peu cent trente milliards matu ko mm-hmm. lan la ci quarante six milliards di mooy deux pour cent ci koppar ak alal jooju yëpp loolu la ciy jur loolu la ciy sotti mu nekk loo xam ne lu garaaw la moo tax tey lii Abdoul Mbaye yëkkati suñu ci mesure yu war wala lii Abdoul Mbaye yëkkati dafa waroon nekk opportunité pour nguuru Sénégal ak liñ ciy joxoñ ñoo xam ne dañu jege njiitu réew mi te ñu ni loolu dañ ko signé ba ñu jëlee nguur gi rek. mais mais est-ce nga mu leer parce que jàpp nañ ne xëy na of nag loolu euh, ki fi nekkoon bokk na ci lu tax moo jógeel ko fi tey jii bu ko Abdoul Mbaye waxee dañuy indiwaat wàllu Petro-Tim wax nga ko ndax xëy na frère président la. Euh, yow est-ce que du tax mm-hmm. bu loolu taxee ñu jëlee ki nekkoon of nag kon ñu xam ne yaakaar tas na ndax nag of nag dañ ko tegoon pour ñu càmbar yorin bi ñu yor yiitu réew mi ci boppam moo ko wax bu fekkee Petro-Tim tax na ñu jëlee ko fi. kon day yaakaar tas na waxu ma ne yaakaar dana tas ne dafa tas ndaxte wax dëgg yàlla maa ngi ciy profité saluer liggéey bu rafet bi Nafi Ngom Keïta def ca nag bu fekkee nag leeral li ñuy mbuxum ak li askan wi di laaj ñu leeral ko moo ko fa jëlee kon man mën naa ne ñun nañu jóg ñun ñëpp takkaat suñuy tubéy ak suñuy sër taxaw ndax alal jooju nag warute yem rek ci benn groupe bu ndaw ndax loolu lay nirool dafa mel ni ku ñëw rek wut sa groupe ngeen seet alal ba nu ngeen koy def mbuxum ko ba mu romb mbuxum googu nag su fekkee moom la Abdoul mbay di woote pour mu dakk nguur gi fi ne daf ko war def occasion pour ñu dem jël contrat yóbbu leen ITIE ndax loolu la premier ministre wax nee na na dem ITIE ma may laaj ndax ITIE yor na contrat yi ndax contrat yi dañu leen tëj ba kenn caabi law be ko ba kenn mënu si jot su ci itiye jotut. nañ ko yónnee ca itiye donc bu ñu joxee noonu rek en attendant ah, dama bëgg mu leer xam nga da ma woo pour mu leer. Mhm. man charte bi ma gis muy code minier bu 2003 te ñu war ko yeesal pot code pétrolier bu mille 1998 lay lay daté ba léegi soxna si ñu ngi koy càmbar pour yeesalaat ko nañ ci boole député yi nañ ci boole élus locaux yi nañ ci boole ñëpp ñi nga xam ne ñooy force vive yi. ñu defar charte boo xam ne bu leer lay doon tey jii comme coow li jib na nag nañu génnee contrat yi suñ jëlee contrat yi te dañoo war a nag dem ITIE en octobre 2016 rapport ITIE bi nañ ci annexé contrat yi te mu nekk contrat yoo xam ne dañ leen di bind ba mu leer sénégalais bu bëgg mu leer ñu génneel la ko te ñu dem nag voté loi boo xam ne accès à l'information dafa war a ànd ak code de transparence bi amaguñu loi de boo xam ne te dañoo dem ci au niveau communautaire mm. voté lu ñuy wax code de transparence kon daal ci tënk mën na léegi de xoolal nañu nañu voté code boo loi boo xam ne accès à l'information dafay am ñu voté loi boo xam ne conflit d'intérêt dañ koy leeral ndax nag di gis tey mooy ku falu rek ah tey jii bu dul yow muy say mbokk wala wala muy say conseiller yu la wër muy conflit d'intérêt mënoo nekk conseiller njiitu réew mi toog ci peggam di ko conseiller ci lu jëm ci pétrole ak mine ba pare yow nga bëgg nekk exploitant. mais souvent argument argument problème argument bi ah? ñuy indi mooy xëy na pétrole taal na réew yu bari donc euh, euh, mbir mi xëy na euh, mënuma wax sax nëpp nëppal mais loolu la ñuy teg ci loxo askan wi. taal na ci réew soxna si li koy taal mooy nëpp nëppal lekk lu leer. lu leer du tàkk de ñëpp xam ne leer na si signé nañ ko li ca ne lu leer la askan wi yëpp ànd na ci soxna si loolu du taal réew mais luy loo xam ne askan wi xamul nu mu demee askan wi nekk ci coono maa ngi masa waa Sénégal dëgg la tey paan bu mag moo am mhm. mm, mm, euh, muy yëfu courant beeg ndox bi ah mais yooyu yëpp dafa nekk ay besoin tey soo xoolee nawet bi maa ngi masawu ñi ne ci mbënd mi di masawu ñi nga xam ne tey euh, ñu ngi bëgg faju te mënuñu ko di masawu ñiy jëm ci tabaski bi te fitna topp leen ndax war nañu tabaski diiñ ma mhm. ci jamono jooju ñuy waral leeral loo xam ne askan wi yëpp a ko bokk te mu waroon jural askan wi lu ëpp 46 milliards yi nga xam ne ñoo nekk ci la rapportu ITIE bu 2000 2016 2013 ba ñu war ko leeral ku nekk ñuy bing ping pong man ping pong ñuy ñuy jouer ping pong ci kaw askan wi di tal créer au conseil des collectivité locale boo xam ne ay milliards lay dikki askan wi te ñu tasoon senaa bi ci diggi nawet ne ndax mbënd maa sonnaloon nit ñi koppar ya mën na dem ci askan wi ma ne dafa laaj tey jii ñu delloo si suñuy xel te nag maa ngi woo njiitu réew mi di woo premier ministre ne ko ping pong bu mu ko ci fekk li ñuy xaar ci moom mu ñu génnee contrat yi bu dee contrat yi yeggagul ci ITIE nañ ko jël jox ko ITIE buñ bu ñu assemblée nationale maa ngi leen di woo muy président assemblée muy président commission développement di président groupe parlementaire ñu jóg su ko exécutif bi deful ah législatif bi jóg créer commission d'enquête parlementaire ñu seet contrat yi ñu signé ci pétrole be gaz bi seet ya ñu signé woon mille neuf cent avant mille neuf cent mhm. ñu càmbar leen ndax meññeef yooyu askan wi mën cee jot foofu lañ leen di xaar leer na kon xaaruñu leen ci bu ñu yem ci ay bataaxal ci na ay bataaxal nañu génne contrat yi réglé lul problème bi dañoo bëgg li yoon wax ak engagement yi ñu jël au plan international ñu dem ci ndax ñu mën ñoo jël comme pays conforme à l'ITIE mhm. mais ñu bañ a nekk fi nekk des pays candidat te di la gërëm bu baax honorable député Hélène Tine moom la ñu doon dalal mu bokk euh, mu di membre kon réseau parlementaire pour la bonne gouvernance euh, minérale euh, rafetlu kon honorable sa teewaay ci xibaaru digg bëccëg bi jërëjëf du ñàkk ni dossier dossier bu ñu suivre la xëy na yeneen i jamono ñu dikkaat ci su neexee yàlla gërëm ko bu baax wax ci leneen lu jëm ci mbir yi kon Ousmane Sonko mi nga xamante ni conseil de discipline bi kon war na ko wax la ñuy dogal ci ay mbiram keneen koo xamante ni kon na ci benn naataangoom euh, jibi si moom la moo gis moo di euh, droit de réserve la waroon euh, jëfee ñu teewlu ko ci micro Mame Birame Diouf. ñaawlu suspension. fonctionnaire am na droit def nekk nekk def politique je pense que c'est un droit mais quand même il faut ñu def toujours la part des choses entre politique ak peut-être euh, le secret professionnel je que c'est important si tous les fonctionnaires aujourd'hui se permettaient di divulguer seen information yi dans le cadre ci seen fonction je pense que dafay xaw métti Ousmane wax dëgg yàlla sama xarit la euh, sama collègue la mais quand même de ce point de vue là je à sa place bu dee ci place am la su ma nekkee ci place am du mu ko def wax dëgg yàlla man fonctionnaire la mais jamais quand même euh, may divulguer information yoo xamante ne dama ko jot ci sama wàllu liggéey je pense que loolu il faut faire faire la part des choses c'est deux euh, daa di euh, wax ni it euh, responsable politique la ca PAPR fële ca war a fondé moom moomee euh, di it inspecteur ñu di kon jibi si doon indi ay xalaatam ci situation nga xamante ni moo di Ousmane Sonko njaay fleur ci boor yi mamel yi wax nañ leen ko ci ndorteel li ku ca daa gis-gis wa nga caam bu ñuy jàppee ni ma ngay dox xam na ñoo xamante ni xëy na nga ca yëngu waaye bu ñu amoon leneen dem ca ndax gisuñu ca seen bopp reportage Birama Thior Pape Sangone Mbaye liggéeyu fleur doon li nit ñi fonk fii ci Mamelles ñu nemmeeku fi xeetu garab yu bëri li ko dalee ci baobab palmier épine de Christ ba ci sapin lii moo waral jaaykatu plante bi jàpp ne lu am solo la. l'avant des fleurs ça rapporte gros n'est-ce pas. njaayum fleur dafa dox lool ci kaw nga xam ni ñu koy defee fii garab bi fi gën a seer ñu ngi koy jaayee ñeent fukki junni ak ñaar euh, am na tamit fanweeri junni. continuer le travail pourquoi parce que après avoir planté les fleurs il faudrait qu'il y wante nag bu ñu sukkandikoo ci xalaatu jardinier bi liggéey bi demewul noonu. <laughs> doxul moom ñu ngi sant yàlla nag mais doxul moom. parce que frais dafa bëri te clientèle bi tolluwul noonu. njaayum plante day moom fi mu ne nii moom dañ koy kolo kolo rek lu ci ci bëri moom. xam nga li li ci li ci aju moo bëri parce que boo xoolee dépense bi ngay def pour am fumier bi ngay liggéeyee ni nga koy composé li mu consommé ci ndox bo léeg-léeg parfois mun nga ñibbee euh, sa cinq mille dix mille quinze mille ça dépend. bu jaaykat bi jàppee ne seen clientèle bëri na lool kii di jardinier bi gisewu ko noonu. on a beaucoup de. suñu clients yi bëri nañ lool saa su ne fii la ñuy jëndee. un petit bilan. parfois léeg-léeg di nga gis tubaab bu ñëw moom buy bu ndaw lay bëgg. Eh, waaw buy bu ndaw léeg-léeg aussi bon comme ñi nekk fii dangay jënd ay quelques plantes yóbbu sa kër euh, renforcé déguerpissement yi bëri lool jamono juñ toll nii ñuy liggéey ci bile jardin di xam ne ne def nañ li ñu warloog mairie bi tàggat euh, yaram ak euh, lu jëm ci U20 euh, yi ak nañu tegoo ca yoonu deux mille Zambie 2017 ñu def ci yaw jàngat gis ak Yatma Diop ancien international ak dem Demba Waroox taskatu xibaar la lan moo jur yi résultat lu mu ci mënti doon gis nañu ni sand formation yi am na solo ndax petite catégorie bi la ñu war a mën a tàggat ngir yenn résultat yi sax ba xëy na ñu war a mën a séntu fu sori mu di reportage Pape Fara Gningue Thierno Laurent Mendy ak gannaaw participation bu baax bi gaynde yi amul ñaar fukki at daal di defoon nag ca coupe du monde ba dem ba ca demi-finale bi yàggut dara ñii di junior yi nag qualifié ci coupe d'Afrique bay am ca Zambie ñii di cadet yi nekk ci yoon bi ngir qualifié ca Madagascar yi le résultat nag li ko waral mooy équipe yi dañ koo jox ay anciens joueurs. parce que boo gisee ne équipe A bi ancien international moo ko yore bu Sénégal boo xoolee euh, yeneen catégorie même chose la bon ñoom ñëpp fubal lañ seen championnat Sénégal. championnat football nañ championnat ci dëkk bi lañ dëkk donc loolu tamit lu baax la. lu baax la lu ñu war a féliciter la mais maintenant tamit bu mu tax ñu fàtte bu mu tax ñu bañ a xool wax dëgg fa yàlla ndax lii nii. Euh, loo xam ne luy mën a wéy la walla loo xam ne guléet la nii rekk. naam sax technicien yooyu indi nañ seen xarañteef. waaye équipe bi li ci ëpp ci ay joueurs ñu ngi jóge ci sant formation yi. ay raccourcis euh, la ñu utiliser mooy lan dañoo jël jàmbaar jël génération foot jël Dakar Sacré-Cœur ak tuuti ci yu jóge ci club traditionnel ñoo xam ne vraiment formé nañ leen bu baax teg leen mais est-ce que am na politique des petites catégorie boo xam ne vraiment taxawal nañ ko ba ñëpp xam nañ ne nii la petite catégorie Sénégal di doxe góob ngir naka fexe ba résultat yooyu daal di sax faaw ñu amal ab bu dox ci ndaw ñi. ay terrain yoo xam ni dinañ ci mën di jot euh, dinañ ci mën di entraîner xale yi école yi même chose état bi mu war a pexe ba sport bi ci école bi baax ba nga xam ni parce que bu njëkk ba loolu moo amoon. yoon bu gën pour ñu am ko foog suñu joueurs yi di jouer lu bëri en cadet di jouer lu bëri en junior di bëri lu ñuy jouer tamit en. équipe espoir loolu mooy tax ñu am assez d'expérience bu ñu yegsee seetlu bi benn la jamono ji gis nañu gaynde yi ndaw yi ñuy gañe ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkku naar yi di qualifier sax ci yenn coupe d'Afrique yi ci loolu ñu seen xel màcc ci wàllu football jàppale nañu war nañoo xool tamit ci atu xale yi balaa ñuy fraude. ndal ci yéen xay yi li ñu xëyee ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Macky Sall def na ko waruma sàmba kumba jéey maye aw nag ba noppi jël genn baak bopp baak fàllara yaak tànk ya tëye bi leen observateur wootey au conseil collectivité territoriales yi investiture bi ci Macky Sall def nar naa jur coow ndax dafa jël lépp féetale waa këram mu di waa APR ñoo jël pépp jël péfét dafa séddu ba doyal soog a jël la ci des séddale ko àndandoo yi listu Benno Bokk Yaakaar ak ni mu tëddee ci ñeen fukki département ak juróom yi ci Ndakaaru investiture yaak ña ci seen tur nekk lépp mi ngi ci biir journal bi waa APR jël nañu jën yu mag ya bàyyee parti socialiste AFP rassemblement pour la démocratie et le socialisme ak takku defaraat Sénégal mu di parti Robert Sagna bi parti Robert Sagna boobee sax l'observateur ne nañu moom la ñu investir ci Bignona mu tane ko fop waa PIT ak waa LD ndax ñoom Macky Sall daf leen zappé ci investiture yi le quotidien nañu ñu fas yéene campagne yi ngir wootey au conseil collectivité territoriales yi ñu xam ne ñoo ngi jëm ci pagaay dëgg campagne en pagaay yëf yi di saf sabar gu tas démb docteur Malick Diop mi amee kàddug AFP janoon ak journaliste yi di xam le ne mi ngi ci listu Benno Bokk Yaakaar ngir gaña Ndakaaru cawe li ngara parti socialiste sëxin gu sëxin ci biir Benno Bokk Yaakaar moo tax du mën a campagne campagne ni mu salfaañoo yéene kay bi di Le Quotidien xëy ca nataalub Abdoulaye Diouf ak bu Khalifa Sall Khalifa Sall ak Moustapha Niass ci xët mu njëkk Walf Fadjri mbirum au conseil collectivité territoriale lay waxtaane ak ni ci Khalifa Sall def Moustapha Niass Moustapha Niass ak ñetti maire yi mu amoon ci Ndakaaru di ay maire AFP ñaar ña fekk nañu Khalifa Sall mu di Babacar Mbeng maire bu Hann Bel-Air ak Babacar Sadikh Seck mi maire la dese ci ndakaaru muy Ousmane Ndoye bu Fass Colobane mi coordonnateur COJER bu Yoff xëy la tribune di fa tubaylu ak a défendre Abdoulaye Diouf Sarr Pascal dañoo ñuy ŋàññe ak a fexel Abdoulaye Diouf Sarr di ko jéem a yàqal dañoo war xam fu ñuy taxaw ndax Diouf Sarr rek mooy responsable APR boo xam ne militant bu bëtam xonq fajal ko ko Pascal ne loolee mu dëkkee ak ni muy taxaw président moo tax gars mayuñu ko jàmm jàmm jeex na ci diggante premier ministre Abdoulaye Dione wax Abdoul Mbaye weddi na ko La Tribune nañu gaañi dañuy caaxaan rek ne kilifa yu réewum Sénégal amuñu benn yoon yéene siiwal contrat yi am ci diggante Sénégal ak ñi muy liggéeyal ci wàllu pétrole ak gaz Walf nañu li premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne tontu Abdoul Mbaye ñeneen a ngi ñoo xam ne wax ja yeeyu leen mu di coalition jubbanti Sénégal nee nañu Mahammed Boun Abdallah Dionne waxu fi dara li am ci diggante Moustapha Cissé Lo ak maître Alaaji mi ngi bëgg a jéggi dayoo di Moustapha Cissé Lo moom la journal bi xëy di waxtaanal ba ñuy wax ba yegg ci diggam ak maître Alaaji Diouf li ci Moustapha Cissé Lo wax moo de Alaaji Diouf na ma may jàmm lu ko mooy danaa ko defal affaire ngërëm ko bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen bu weer yéen ñaanal ñun benn waxtu ba léegi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 ci yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futur Média jërë ngeen jëf.